GE jot na fukki liste ak juróom-ñett ci ñooñu bokk na si liste bu fa parti nguur gi nga xam ne dafa jël ndogal demal boppam ki ko jiite nag mu di limaan jurin ya di Ousmane Sonko nguur gu bees gi nga xam ne moo tas assemblée nationale ci fukki fan ak ñaar ci weeru septembre li mu bëgg mu di am majorité sa assemblée nationale. waaye nag laata loolu faw mu am ndam ci kaw opposition mi nga xam ne am na ay coalition yu mag bokk na ci jàmm ak njëriñ di coalition goo xam ne dafa boot socialiste yi progressiste yi ak itam mouvement bu bees di nouvelle responsabilité mu doon nag coalition goo xam ne ki fi nekkoon ilimaan jiwriñ ya di amadu Ba moo ko jiite. am na itam coalition sàmm sa kàddu mi nga xam ne moo boot taxaw Sénégal bu Khalifa Sall PUR bu Serigne Moustapha Sy PRP bu dece Fall gëm sa bopp bu Bougane Gueye yi ak itam mouvement les serviteurs bu Pape Djibril Fall ak yeneen coalition bi nag maire bu Ndakaaru yeewu di Barthélémy Diaz moo ko jiitee am na itam coalition takku wàllu Sénégal mi nga xam ne dafa boot ay parti yu mag mi nga xam ne dafa boot ay parti yu mag bokk na ci parti nguur bi fi nekkoon di boo ko gis-gis bu Pape Diop PDS ak réew mi bu Idrissa Seck tête de listam mën na nekk ki fi nekkoon njiituk 16 di Abdoulaye Daouda Diallo walla ki fi nekkoon njiitu réew di Macky am na itam coalition farlu mi nga xam ne Moustapha Diop di maire bu Louga moo ko jiitee waaye itam coalition ànd beesal Sénégal bu Abdoulaye Sylla ak yeneen candidature indépendante élection yi nag lépp xaj na ci waaye nag xeex bi dina nekk diggante parti nguur gi di PASTEF ak coalition yi di takk wàllu sàmm sa kàddu ak jàmm ak nga xam ne sax taxawal nañu ab intercoalition ci département Sénégal yépp waaye itam ca diaspora ba gannaaw bi ñu defee nag dépôt list yi ba noppi direction général des élections am nañu juróomi fan ngir càmbar fukki dossier ak juróom-ñett yi mu jot.